mi ngi nee di ñëw Mbacke mi ngi nee di ñëw sëñ Ba ngi nee di ñëw. mi ngi ñëw waaw waaw mi ngi nii. làqu waay. kii moom bu laa demoon di seeti si xam hmm. waaw bisimilah. ah kon kay ana Abdoulaye Diakhaté. donc kay kii man la. ngeen tasee loon kon xam nga maa ngi la naan ñii dañoo. ñoom la waa kër sëñ Maodo Kara. ñu mel ne ñu ñu may yëgal. booba nag booba si woon. waaye ba ñu ñëwee bëgg nañ ba def ni rek sëñ bi mu ngi ci biir. man wàccu ma sax dama ni dama ni Amine na ma la laaj. kon bi ñuy ñëw fekk na ngeen ñëw fa yéen. déedéet maanaam dañoo nekk dañoo daj ci yoon bi. waaw. farada bi kulla aduwin si doxu. waaw qultu wa qad nawaytu idmana shukur ila aljinani wa huwa almu'min shakur. allahu xayru man lahu yawi faqir. muxsinu danin fatirarin wa xaqir. wa sabtu billahi alladi qad anzala kitabahu wa qad gada bi nuzula أفادني الله بنفع أقل به وبالنفع الذي لم يعقل أقرأه مصليا مرتلا لوجه من يأبي الذي تبتلا أمدح خير العالمين مسجلا بمال مرجان ودر أخجلا محمد أفضل من توسل به له من فيه باع عسلا أمدحه لوجه ربي الكريم بأحرف ثوابها ليس يرد مدح النبي المصطفى الهادي العظيم هو امتداح الله في العرش العظيم مدحته وكف عني الرجيم في البحر وحدي بسحبه النجوم قلت وقد برئت من كل أذي بجاهه كما تفارقت المدين صلى عليه بسلامه العظيم في أسره وفي قومه وليجاد بعظيم أكرمني الله الغني المغني بما لديه وأزال ضغني قد جاد لي منه بمستكني وكل ما بعت اشتراه مني وثمني يسوق لي بالمن وسلعي في البعض عفوا عني وقلت فيه شاكرا بالوزن وبالنبي قد أزال حزني الله خير مشتر ومغني لمن به مع النبي يستغني قد كف عني جملة الأسرار في البحر وحدي سيد الأبرار قنيت في البحر عن الأستار بالله جل والنبي المختار صلى عليه الله بالتكرار وجاد لي بجملة الأسرار قلت وجاء ثمن الصغار وثمن الكبار والصغار محمد خير إمام جاري وقيده إلى فؤادي جاري maaxin maha anniya kullama fasad wa bimtidaaxihi gadawtu ka asad allahu li jaada bi ruuxi waljasad bi jaahihi wa liya raada man xasad kafaaniya albaaqi muqiitu wassamad bi jaahihi kulla balaain wa kama qultu قلت وفارقت الحساب والنكد في أبد بجاهه وكل كد صلى عليه بسلامه الأحد fii majuri yi sama kefal yaa ko dégg. waaw léegi nag xel nga ci biir ak ñu naan ko ci moom. dégg ko def kër bi ni ngay def boobu. léegi nag. waaw ñoom nañu wax. li ma leen waxoon. Mhm. ndax moom mi dafa tajwid ni mu def léegi. Mhm. Mahfouz ma le. Mhm. moo ngi <coughs> ñoom ñaar ñu koy ñu koy ñu ma ne leen nag alxuraan ji baax na lool waaye ku tedd ki da ko def nii fi mu toll nii mhm. maanaam alxuraan eh, sirru bi mhm. maanaam fi mu toll eh, diw gi mooy xasay ñoom damaa wax ak ñoom nga ñëw confirmer li ma wax. <laughs> dëgg la moom mu dëgg la dëgg la damaa wax ak ñoom nga ñëw rek bay bi ci biir wasiqtu billahi allasi qad anzala kitaabahu wa qad gada li nuzula afadani llahu bi nafin uqila bihi wa bi nafin alladi lam yuqala aqra'uhu aqra'uhu musalliyan murattila li wajhi man ya'wi alladi tabattala am na kon yaa ko dégg sëñ Modou nee nga toog na de. waaw ok dama kii ñëw rek